abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir door su nekk ay xibaar yu wér te mi ak ci bitim lan bikum bàjjenu gox yi njiiti réew mi Macky Sall fale na yokkal seen salaire juróomi junne lañ daan fayeeku weer waaye fi mu toll nii weeru suleet wii di ñëw su dee fukki junne la ñuy fayeku Le Soleil yéene kaay moo ñu ko xamal juróom-ñeenti junne ak téeméer fanweer ak juróom benn mooy li mu bàjjenu gox yi nekk Sénégal regard yéene kaay na njiiti réew mi kay fay ngoro bàjjenu gox yi te yemul ci yokkal leen salaire de association mbootaayu bàjjenu gox yi nekk Sénégal nga xam ne ñu ngi toll juróom-ñaar fukk ak juróom ñoom fa la na jox ambloku benn million Dakar Express ne bi muy dajee ak ñoom nag moom njiit réew Macky Sall fa faa wane mbégteem turbine yéene kaay na njiit kay fa débloqué juróomi téeméeri million lépp ngir neexalee ko bàjjanu gox yi <laughs> leer la nen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na njiit makki Macky Sall fi mu toll ni fa nekk ci diggante teggi tànkam apaisement dal ci réew mi boole ca tamit fexe ba état bi dëgër këcc nekk état de droit gis-gisu Maodo Malick Mbaye ci fànn wi mel ma ca biir yéene kaay ba info yéene kaay moom fa xëy secret yi nga xam ne fa ñoo nekk ci dialogue politique bi yaaw seetal président commission ba ba léegi kenn falut ko Tanor Thiendella Fall moo ko jiite waale gum te su fekkee professeur Serigne Diop bañ wax fa bañ na du ko jiite su boobaa Thiendella mooy continuer fukki poñ ak juróom la ñu waroon a waxtaane ca dialogue ba léegi fañ ko wàññi fukki poñ la ak ñett bokk na ca la ñu war a waxtaane candidat wu njiitiram Macky Sall ñetteelu mandat fexe andi coppite ci article L29 L30 ak l ci code électoral bi naka noonu delloo si waat droit Karim Wade waxtaanee ak wàllu bulletin unique naka noona tamit xattewaat procès Karim Wade bi dialogue bi nag le 23 juin bi ci la liggéey bay jeex le 24 lañ tënk ñu def ko ci këyit dem jébbal ko njiitëram Macky Sall le 25 ci la njiitëram Macky Sall di wax ak askan wi leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy na Khalifa Sall waaye yeewi askan wi nee nañ boo moytuut fañ koy kajji daq génne ko ci seen biir mbootaay ga mook ñam àndal turbine yéene kaay na xam nga lu tax bokk bi Khalifa Sall ak ñam àndal bokk dem fekk ji ànduñu ci ba tax lee si ko yéen kaay na yeewi kay fa ñoo tëkku Xalifa Sàll ndax fa ñoo wax ne képp koo xam ne respecté woo charte yeewi ya fañ koy jëflante ak yow te mooy fañ lay dàq rek kaj football ca biti le quotidien yéen a kaay na Xalifa Sàll kay fi mu toll ni kaala ca yeewi critique yéen a kaay na ko kaa yem rek ndax fi mu ni waa yeewi fañ ko nar a génne ko seen biir de bés bi yéen a kaay na ko moo taxit yeewi fa ñoo bëgg a kut Xalifa Sàll wax ne noppi na ngir dàq koo xam ne respecté woo seen charte ya te Xalifa respecté wu taxaw ah fañ leen a wax ne ñun waa yeewi askan wi wuj wuñ dialogue ñoom ñu tax fa ñoo leeral ne ñoom waa yeew yi yebaluñu xalifa sàll yebaluñu taxaw bu fa kenn jël dogal seen tur indépendant yi ne kaay ne yeewi kay fa ñoo dànkaafu bu baax waa taxaw yi <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne remaniement fa nar xam ci gouvernement bi njiit réew Macky Sall fay soppi gouvernement bi bu jalak bi weesoo enquête yéen kaay moo ñu ko xamal xam na nag ay ministère yoo xam ne yu xam solo la nar nañ caa indi coppite de dàq ak remplacé yéen kaay bi na lii yëpp nag njiit réew Macky Sall fa bëgg a def muy remaniement ko ba mu dëgër këcc ka wax kàddu yu dëgër këcc ko ci Ousmane du kenn ku may Doudou Ka yow seetal Doudou Ka fa attaqué dugg Ousmane Sonko ba taxaw ca bopp ba nee na Sonko fa féewale njaboot gu bëri Ziguinchor ba pare fa hëlbatiku oote waa benn bokk yaakaar yëpp ñu nekk benn ak amal unité nationale ma ngi ko waxee ci l'évidence yéen a kaay critique yéen a kaay feelu ko ne Doudou Ka kay wax na sax li nga xam ne moo ko féewale ak Ousmane Sonko maanaam li tax ñoo juboo la dépêche yéen a kaay ne député yi benn bokk yaakaar fa ñoo tontu tontu yi saf sàpp ñetti député français yi nga xam ne fañ doon àddu ci tolluwaay réewum Sénégal fañ leen a wax na yéen démocratie bu France fa ngeen koo gàcceel si du quotidien moom xëy di ñu xamal tolluwaay tasum xibaar ci réewum Sénégal journaliste yi fa ngay gis léegi ay tele yoo xam ne fañ koy couper signal ba ak ay journaliste yu ñuy tëj kaso ak yeneen yi ni mel dafa nekk lu doy waar lii yéene kaay na ko Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru fa demoon seeti ji waa Walfadjri mastawu leen ca la leen waaye fa sàkku ñu respecté liberté journaliste yi ña amul liberté nag mooy ña ñuy teg loxo ndax fa ñoo bokkoon si ñu doon yàqate caxat-caxate alalu réew mi ci ñaxtu yi weesu léeg si ko yéene kaay na takk dari kay ba léegi fa ñuy jàpp rek ba tax attekat yi fa ñoo xat fi mu toll ni débordé ndax fa bëri ñuñ war a atte ñu jàpp ci ñaxtu yi police ak gendarme fi mu toll ni fa ñoo xat ñoom tamit fa jàpp rek l'observateur na ko faalee koy dëggalal gis nga université bu ndakaaru yàqtu yu bëri yu garaaw ya fa xamoon am na ñett ñuñ ca jàppagum yaaw seetal ñaar ñoo xam ne jàngeewuñ fa Ziguinchor lañ bàyyeekoo ñetteel bi nag ab étudiant bu nekk médecine la xam na tamit ab étudiant buñ fekk mu faatu ca place ya jàkkarloog université gp yéene kaay di ñu xamal Sénégal yi nekk bitim réew te nga xam ne fañ koo tëjoon andi na ay jafe-jafe de bëri na ay niiw sénégalais yu faatu bitim réew fi mu toll nii seeni mbokk bëgg leen a xandi te mënta nekk Aïssata Tall Sall jëwriñ ji fa wax lu leer na ñun mënuñoo andi niiw yooyu pour muy leer la leer Mariama Sarr moom jëwriñ ji ñi dénk wàllu formation professionnelle ba mu wax ko ci lii yéene kaay mooy na soxna yu xale jigéen yi fi mu toll nii ñu ngi góorgóorlu bu baax wane seen bopp ci baccalauréat bi yaaw seetal ñetti ak ñetti téeméer ak juróom-ñett ci candidat yi def bac technique ren junne ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yëpp ay jigéen lañ loolu baax na li baaxul nag ci yaayaa jàmmee bi fi nekkoon jiiti réew bu bi mooy ne fañ koo nar a jàpp réew mam nekk delloo si ko biir bi ba pare atte ko Dakar Times moo ñu xamal ne américain yi ñoo nar a financé xatteb yaaya jàmme bi fa tànn benn procureur spécial boo xam ne moo koy topp ndax ay ñaawteef yu ñu wax na fa koo defoon ba mu nekkee njiiti réew bu Gàmbi bokk na ca ñam lor sax ay sénégalais yu bëri ka doon xettali ku loru ba far ma mu mujj loru l'observateur moo ñu ko xamal ah, Sénégal fa xam benn xale bu jigéen fañ koo takk mu sëyi bees maanaam séet la léegi fa dem ca dex ga genre géej daal rek gis benn xale bu góor boo xam fukkaat ak benn boo xam ne fa doon lab nekk ca biir ndox ma moom ndaw sa nag mu tëmb ca biir ndox ma ngir dimbale xale lu góor la far moom ca boppam mu mujj lab nag faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca diwaanu podoor <laughs> waa ma ne ay yow moom li la dal métti na de saam ab siit xam jëkkër bees gis xale góor luy lab nga yërëm ko dem di ko làbbarti far nga mujj lab ba doxee